salaamaaleykum mbokki internet yu Feeling Dakar ñu ngi leen di euh, bëggee bu baax a baax euh, di leen nuyuwaat encore une fois euh, tey jëlee bésu Korité ñu am mbégte dem kër ndaanaan itam fas ne jàkkaarloog moom waaye balonteeg moom ak permettre également mu balonteeg ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay fansam di ko suivre un peu partout à travers le monde kooku nag du kenn ku dul Pape Birahim Ndiaye l' enfant de la Médina bi nga xamante ne bii moom mooy tiitoro Médina. mais di tiitaroo Sénégal Pape Birahim mi nga xamante ne bi macha allah mooy borom baatu rus bi waaye mën nañu ko woowee tey jëlee Pape Birahim l'international euh, nga xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ak ci diaspora bi euh, moom lu bees tax ci moom daañu ci waxtaan euh, ci biir émission bi waaye laataa loolu ñu bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateur yu Feeling Dakar Birahim ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaye Xaadim maa ngi lay fay maa ngi lay fay macha allah ñu rafetlu sa teewaay fii yow moom ndeysaan waaw yow sama xarit rek daal vraiment. waaw ñuy déggante tout le temps waaw di ñaan yàlla nag euh, korite gi ñu euh, dugg nii ndeysaan génn ci weeru koor gi vraiment muy dem mu nekk nag lu triste nag yàlla ñu yàlla may ñu fekkee koy at yu bari bari bari bari bari bari bari waaw yàlla defal ñu jàmm fii ci Sénégal euh, suñuy kilifa yeeg suñuy wayjur yëpp ñu leen ñu leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaw vraiment di nuyu sama xarit yëpp ñi nga xamante ni samay xarit la xarit lañu particulièrement ndeysaan galaam yi nii sama xarit la Ndiary Guèye mu ngi nii dafa tombé ci affaire bi doomu ndoy Babacar Ndiaye ah euh, vraiment di ñaan yàlla aussi tamit gouvernement bu bees bii euh, bi fi yàlla teg ñaanal leen yàlla yàlla dëgëral leen seen taxawaay euh, ndax lépp ci Sénégal la rek ndax nit moom boo ko yéenee safaan bu ngeen bokkee gaal nga yéenee gaal gi safaan yow bu gaal gi daanoo yow te doo mucc donc comme ñoom la fi yàlla teg rek yàlla na leen yàlla defal jàmm ba li ñu bëgg ci senegal li yeneen réew yi am ci seen réew yi. yàlla def ko fii ci Sénégal ndax vraiment ëppale wuñ ñu dara waaw gënuñ ñu dara ëppuñ ñu xam-xam ëppuñ ñu recherche donc fokk ñu ñeme liggéey fokk ñu ñemee aussi tamit euh, euh, jokkook ay nit yoo xamante ni seen intérêt personnel taxu leen jóg dëkk bi moo leen tax a jóg ñu ñaan yàlla defar Sénégal président Diomaye fay ñu ngi koy ziar bu baax ak euh, président Ousmane Sonko macha alors exactement euh, Pape Birahim mu foofu laay duggee yow sax mu nekk loo xam ne euh, c'était pas évident mën naa ko woowee risque nga nekk artiste bu teel am engagement d'habitude du ñu koy faral di ci artiste mbalax maan yi nga am engagement ci sa réew. di wax ne système bi dafay war a jóge euh, ngay àgg ko xeex d'ailleurs bi euh, maa ngi fàttaliku ay émissions yu bari yoo xam ne dañ doon toog dangay wax loo xam ne dama naan waaw euh, mbalaxmaan bu toog di wax lu mel ni ci système bi moom yombul en plus jomaay ñëw ngay yëkkati way bu rëy way ko ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Sonko ak président Jomaay mu mel ni déjà mbégte la. waaw xaaral lu ñu féete lu ñu naan ragal féete aussi day day xañ a wërsëg parce que. Euh, ku ne gis nga li nga xamante ni moom moo amoon fii ci Sénégal donc même bi ma defee sound bi ni ci yaakaar ni peut ko dañu bàyyi ba affaire bi euh, sotti ba pare ñu way ñun wayuñu pour affaire bi sotti wayuñu xaaruñu pour dara quoi bañu waree wax wax nañ ci aussi way kenn mun ci jàpp kenn kenn mun ci xooxatal kenn nit ki bu fekkee da nga mën a ñeme jël euh, risque nekk si dëkk bu la neexul taxal nga doon nga dénoncé ko quoi mais affaire bi du ay way quoi xam nga bi wax macha allah wax nañu te wax ku nekk yaa ngi ñuy ngay def parce que wóorul nga dem ñu jàpp la mun nga <coughs> ma xam ni yombul woon c'était pas évident quand pas évident quoi sama réew rek moom a tax a jóg quoi xam nga euh, ku xool Sénégal Bamba xam ni Sénégal dafa metti aussi te bu ñu waxee artiste mais da ngay xool ay Tiken Jah Fakoly da ngay xool ay euh, Alpha Blondy da xool ay Bob Marley ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni c'était des révolutionnaires yoo xamante ni ñooñu seen intérêt personnel daanu leen tax a jóg. mais bu fekkee yow waykat da nga naan man way laa seq ak population yow tamit yow population bi am yow pour pour yow pour man yow amul amuluñ la njariñ quoi. xam nga nit kay da ngay nekkal sa population ci lépp comme yow porte de voix ngeen da di way loo xamante ni nit ñi a jëlee ay leçon nit ñi dañ ci war a dañ euh, a jëriñu mais bu fekkee tamit loo xamante ni da ngeen ci war a taxaw pour opposer wu ci pour nit ñi mën am jàmm mais ngeen def ko mais duñu duñu seq ak askan wi way kese pour man loolu moo tax bamb boo gisee man ma dugal ci sama grain de sel euh, vraiment wax ci daan ci wax ba sonn mais loolu moo ko waral ah. alors euh, tey boo nekkee artiste di way euh, di wax ci système bi lu négatif doo am ay opportunités yi artistes yi am maanaam mm, sa concert yi ñu koy financer lu bari di la yomb. loolu yëpp nga dëddu ko metti woon na quand ci non loolu man heureusement sax man bi may bi may bi may nekk di kaas wala di euh, euh, di di wax yu ci bari sax fekkuma Sénégal quoi mais def fi single boo xamante ni single bi mois de euh, mars la woon man la mars laa tàmbalee def single boo xamante ni di di kaas defar Sénégal te mars la la la la Bassirou Diomaye Faye jël jël jël réew mi gis nga coïncidence boobu single boobu ci laa ko génnee que ni am nañ pétrole am nañ zircon am nañu lépp pourquoi ngeen di paacoo àllu dëkk bi loolu fit moo koy def te aussi tamit bu boo fekkee da nga yaakaar ni yow dëgg soo ko waxee ñi lay financé dootu ñu lay finance xanaa xamoo yow doomu aadama lépp lu la jox rek sa wërsëg la an yow ci anam bu normalul rek am na ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy sàcc dem jëlee seen alal ci alalu sàcc ñu jàppale dóor la ba nga dee ñoo xamante ni dañuy jaay seen bopp pour am alal te pourtant loolu boo toogoon sa wërsëg la mun na la fekk ci anam bu bu naas parce que yàlla moo ne ci alxuraan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah risquha Euh, koo gis ci àdduna rek yàlla moo yor wërsëgam kon nag doomu aadama bul tiit xam nga li fi nekkoon nii vraiment euh, ñu ngi sentir sax benn benn benn benn stabilité boo xamante ci dëkk bi vraiment daal man xaw ma ndax li may sentir noonu xaadim yaa ngi koy yëg parce que dara dafay metti pour mu baax aussi tamit quoi foog mu metti tey ëllëg mu baax mais yow dëkk yi développé yëpp bu ñu leen waxee bu ñu la waxoon ñoom fi ñu jaar <laughs> xaadim yombul c'était pas évident bu ñu ragalee pour changer te ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee baay donc la personne de Ousmane Sonko Pape Birahim yow teeloon nga ko apprécier teel a gis vision. non mais si mais loolu parce que xam la moo tax man Ousmane Sonko ma bokkoon nag man ki ma doon am naa sama benn copain bu ma bu ma bokkaloon euh, fi ñu daan jàngee depuis 87 imagine toi 87 ba ay 98 19 kon xam nga xam nga euh, kooku yàgg nañ maak moom bi ñu bokkee fi ñu daan jàngee. ba moom mu génn ba am ay diplôme dem euh, nekk impôt et domaine nee na nekk na fa ak moom 15 ans. yoo xamante ni lu mu xamal moom lu mu xamal waa ji te li ñu naan wama shahidna illa ma alim na doomu adama da ngay da ngay wax li nga xamante ni moom nga xam comprendre nga euh, Guèye maa ngi de passage mais 15 ans yoo xamante ni moo lay wax jubu waa ji nit ku jubee noonu kooku bu la ko waxee mais kooku da nga da nga lim la wax ngay ngay ngay mën a jàpp te tamit nit ki boo ko xoolee ci ci ci jikkoom xam nga tey ñi mënoon nañu jël réew mi sax nit gis nga liñ naan gis nga kii kii kii yaru kii yaru ak kii yooru mënoo leen xàmmee fii ak amuñu lu ñu bëgg des fois nit ki yaru nga yaakaar ne dafa yaru alors que yaruwul dafa yorul rek kii yooru foog mu yoot pour am li mu bëgg mais ñii dañu déterminer ñii dara safu leen ay taalibe lañu quoi waaw dañuy ñaan yàlla comme nag nguur dafa doy waar yàlla moom <clears throat> nguur dafa garaaw doomu adama saa bu ko yàlla joxe yeneen ndombal tànkiri iblis day taxaw mais nag ku ku ku xool xam ni yàlla mooy joxe nguur du Sonko moo koy joxe du population bi ñoo koy joxe du kenn mais nag yàlla day jaarale dara mbir ci ci ci nit. mais parce que dañu xul illahuma maalikal mulki tuxtil mulka man tashaa wa tanziul mulk mi man tashaa wa ti'zu man tashaa yàlla mooy wa tizulu man tashaa bi yadikal xayri wa ti'zu man yàlla mooy joxe daal nguur xam nga du kenn moo koy joxe donc foofu ñu foofu ñu def def fa attention quoi. waaw léegi nag bu leen ko yàlla joxee nañ leen ñaanal rek pour li ñu bëgg ci Sénégal bi incha allah ñu am ko. Euh, Tito benn moment nga euh, toog génn benn clip boo xam ne dafay wane ay violence yu am ay dëkk yu ñu taal euh, ñu taal clip bi mën naa ne boo ko xoolee ci violence bi amoon Sénégal yëpp est-ce que loolu jotoo ci ay menaces à un moment donné. ma ko defee bi ma dañ ko dindi bi ma defee montage boobu booy kii sax dañ ko dindi quoi parce parce que ñoom bëgguñu ay images yoo ay images yu kii la ak yooyu noonu mais man même sama yaay da doon wax ni doon woote pour que naa bàyyi li may def déjà ma doomu aadama euh, xam nga tey nit ki moom am na yoo xamante ni yow doo ci nekk sax pour leeral wala pour def benn affaire wala pour génn man yàgg naa xeex fii ku fi xeex sa bopp nga xeexal man xeexlu ma kenn waxulu ma kenn waxuma pour sama poche waxuma pour nit ñi xam ne maa ngi wax pour que ñu ànd ak man man nekkuma ci affaire yooyu quoi dañu xam ne lii fi nekk nii bàyyi dafa doy bàyyi benn dànq rek boo xamante ni bàyyi ilaa yow mi ñoom ñooy yor muuni muuni bi di tas ci dëkk bi nga gis ay nit yoo xamante ni yow yaa leen dàq faay téeméeri junni yoon ñu lay romb ak ay ay ay oto yu rafet ak ñii la la romb ay kër yu nice ñi la doon ay xam nga loolu xam nga man sama genre yi romb maag caabi àjjana nga xool man je m'en fous mais am nit yoo xamante ni tey bu ñu gisee loolu mooy moo waral booy di jël gaal gi di dem seen yoon dañ waxante dëgg ngay gis sa morom boo xamante ni gaayeen bu dee jigéen la sa morom boo xamante ni gënu la ndey gënu la bàyyi dàqu la ñafe nga gis ko mu yor loo yorul yow bu dee boo boo amulee tuuti ngëm yàlla rek tam nga dugg ci loo xam waroo ci dugg bu dee góor la nga gis koo xamante ni dañ koy financé ci ci moment ci ci ci anam boo xamante ni jaaduwul amul benn amulul benn njëriñ état bi mais mu ngi yor mooni boo yorul bu yàggee ah gala bu yàggee nga ne damay dama dama bëgg am mooy war nga dem jël gaal gi wala nga nekk sàcc wala nga nekk dara bàyyi loolu dafa doy il fallait que système bi changé mais nga génn way boo xam ne da nga ne artistes yi rus nañ classe mbokk artistes yu bari yi nga xam ne ni ñoom ci système bi la ñu nekkaloon mhm. yow aussi loolu amoo ci régré amoo ci <laughs> non xam nga regret xam nga kan mooy am regret man tey su ma seqoon ak yow yenn affaire yoo xamante ni vraiment c'est profond même gis nga nag gis nga même bu ma seqoon ak yow loo xamante ni c'est profond gis nga ba la waree wax sa bët bi suuf nga dama la koy wax doo ci mën dara comprendre nga mooy li ma la wax léegi yow dëkk bi mënuñu nekk yow yow tey ñun bu dëkk bi bu bu amul stabilité nit ñi bu ñorulee xaalis mais lan la ñuy jëndee album nit ñi lan la ñuy demee ay soirée nit ñi lan la lañ lay rek mais am na benn am moment donné boo xamante ni dootoo xool c'est interpersonnel quoi booy da dem nga xool nit waa dëkk bi di di di daj da ngay sacrifier sa bopp pour que ni tey bu ñii ak ñiy gañe woon bee boo yow nañ la xañ opportunité yu ne yow titan fou parce que yàlla mooy joxe mais bu fekkee pour man bi man affaire de profito laa ko gisee quoi mooy que ne yaakaar ngeen ni kii nii mooy kii ndax kii euh, am na yenn kii nii comme ça dafa war a jël dëkk bi non c'est faux ku ko gisee noonu nax nga sa bopp ba tax ngeen babbeeku dem di ci yeg na ko am ngeen ci droit ah. ku ne am nga droit way ku la neex mais parfois da ngay xool sa intérêt dëkk li ñu bëgg ak nit ñi li ñuy daj booy dafa metti yow yow saa boo nekkee sa kër di teg añ di teg reer hmm? di teg ndekki di laal say jambon di laal say boisson am na koo xamante ni booy billaahi wallaahi am na ñoo xam ne mun nañu toog un an bo moytu sax duñu lekk di bi donc ba foog ñu xool loolu quoi tamit bañ di xool suñu bopp kese. donc bi nga naan artistes yi ruus nañ euh, tu faisais allusion à ñu génne ay clip pour Amadou Ba moo xam Sidi Diop la moo xam Pape Diouf moo xam Waly mi dem euh, ñu ci bari nga xamante ne bi soutenir nañu Amadou Ba tu faisais allusion à parce que kenn mënul woon gëm ni que ni. kenn mënul woon gëm ni Diomaye fay mii day jël dëkk bi. mais man nee naa la yàlla mooy def lu ko neex te da koy def ci ñu ko neex man du ma fi nekk di wax du ma fi nekk man yow tegal naa la loo xamante ne dégg nga ko sa bopp te du ma ci débat tamit mais dama ne la parfois li ngay yaakaar ne mooy am barke alxuraanul karim du am des fois na nga gis koo xamante ni xoolal nit ku yemba mbaay la yàlla may ko loo xamante ni muy gis loo xamante ni yow miy fanaan ci deru kii ak kursi li muy gis doo gis sa xaaj bi ndax yow <laughs> kenn xamee wala caaxaan man woo naa la fi téléphone ay maintes fois yoo xamante damay peut-être que dama voyagé damay bëgg sa am affaire yu ma lay wax mais du peut-être que duñu jotante quoi comprendre nga mais tey ñi nga xamante ni tey yàlla dogal na tey kii nguur gi dem ci ci ci ci euh, ci ci Diomaye Faye ñëpp dañuy yaakaaroon ni que ni affaire bi fee lay féetee te demeewul noonu moo tax ma si ruus nañ léegi ba ci lan. Pape Pape Pape duñ la mere artiste non man ku ma mere yow man man de tànk nee naa Seydina Limaamu Laahi mi ma gëm. ak yàlla mi nga xamante ni man moom laay topp man yàlla rek laay topp tant que ñooñu merewuñ ma bàyyiwu ma keneen ku ma mere man sama yoon nekku ci mais façon bi nga leen ko waxee dafa xaw a métti quoi en fait est ce que mënoo ko a mais a dajanteeg ma dajanteel après la la <laughs> man man amuloo ma sama dépense <laughs> amuloo ma sama sama sama sama essence bu may def sama oto àgala xam nga joxoo ma dara quoi tamit dañu waxante dëgg quoi jàmm la ñu seeq rek mais moo tax ma ne la dëgg bu ñu ko waree wax dañ ko dañ koy wax man awma dara lu may ragal ak loo xamante ni damay xool ni kii ni nag la leen xam nga loolu loolu moo wax noonu amul problème waaye moom da ngay xam nga way da ngay xalaat li nga li la neex rek kii xalaat lu ko neex keneen xalaat lu ko neex après jeex na ah. mais bu doon américain yi tey dañuy taxaw di saaga dañ lay saaga dañ lay saaga que ni yow yow fekk nga wala dara dañ koy waxante muy jamaïcain muy ñeneen ñun sax sàng nañ ko kii sax nekk kari carrément artistes yi rus nañ mais ñoom amuñ ci luñ ciy seet quoi waaw moo à chaque fois li ma leen di wax daal di leen ko conseil moo à chaque fois bu seen population nekk ci benn côté boo xamante ni li ñuy xeex ni dëgg la mooy que ni dañuy wax ne dëkk bi dafa metti dund bi dafa cher mais location yi booy gën a cher ñoom ñu ne loolu la ñuy xeex pour loolu dañ fi bàyyi àndal ak ñoom ci loolu waaw wala gisoo loolu Bamba nañu waxante dëgg. donc kon am nga respect ci Abdou Guité Seck ak ku mel ni Daba Seye ñi nga xam ne ñoom aussi teel nañu way kii di song. waaye man waxuma la ay teel nañu way ak teeluñu way man loolu lijjantuwuma ay affaire yooyu teel a way ku teelu way man dama ne la dama lay laaj moo mën a jàpp nit ci way yow da nga bëgg artiste mbalax bu engagé non mais mais yow boo deful loolu lan ngay def parce que affaire bi du Bamba affaire bi du way kese du kese la way parfois da ngay taxaw nga jël ay ay ay discours def ko wax parce que suñu wax am na lu muy lu muy posé quoi comprendre nga mais affaire bi du way du question da koy galaam yi génnee nañ ko prison mu ngi war war a war a war a nga way ko ban sens la am wala galaam mu nekk ci prison way ko ne leen génne bàyyi leen jàmbur <laughs> mais arrêté mais arrêté leen sama gars yi fii kenn mënu nax kenn. donc artistes yi ñoom un peu euh, ban conseil nga am boo leen di jox parce que dafa mel ni ñoom dañuy bàyyi ak système bi à chaque fois wala ci système bi rek la féete ah. Bamba man wax naa la ko léegi mooy que ni à chaque fois sa population fi ñu nekk euh, bu ñu nekkee ci benn souffrance yow da ngay ànd ak ñoom ci loolu parce que yow ñun ñun bu dul askan wi ñun du ñu dara du ñu xeer tamit booy. ñun dégguma la la ñun li ñu mel nii ñoom gannaaw yàlla mais ñoom ñoo ñu ko def quoi yow yaay génne benn affaire mu neex leen ah? ñoom ñu ànd ceeg yow di la support. foo dem ñu fekk la fa mais ñooñu bu ñuy dee yow gis nga booy ni ñu leen dóoree ay bal lañ leen lañ ñuy dee ñi ñàkk seen i seen i frère ñi ñàkk seen i nit lu ne mais yow ñooñu man boo bëggee ànd ak yeneen nit bàyyi ñooñu mais man man man man comprendre du ma la quoi man vraiment te yow mii di journaliste yow yow ñooñu comprendre nga leen yow wax c'est grave quoi tamit te fii nag man à chaque fois ne da ngeen bëgg xam di ma poser ay questions man damay wax li nga man affaire de hypocrisie wala affaire de neexalaateeg ay wax yooyu man nekkuma ci quoi yaa may dégg ay affaire ay rafetal dangay nii comme ça nii li may wax dama koy wax mu nekk lu dëggu munu ko wax ñu bañ a def interview quoi voilà c'est ça. d'accord alors Birahim à chaque fois buy wax ci côté boobu da ngay gis ne euh, dafay tàng parce que euh, moom noonu la mel de nature mais dañuy euh, bàyyi étape boobu wax ci leneen ah ñu gis nga génne beneen way récemment boo xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi ko jagleel kenn koo xam ne. aussi euh, monument la ñu ko mën a woowee ji muy jigéen muy soxna ay da Diallo lan moo la inspiré nga way soxna Aïda Diallo. xam nga loolu euh, déjà ça date euh, depuis longtemps dafa yàgg loolu woy naa ko bu yàgg denc ko teg ko voilà ndax naan nit moom di nga am ci moom cofeel way ko jàpp sa ñàmbur di naan daas ko fanaanal jàpp sa self ko xam nga ci li tax ma def ko mooy que nii dafa di jàmbaar hmm. di nit bu effacé. duggul ci lenn kenn kenn gisu ko ci dara lu ñàkk fayda je sais pas nag doomu aadama yi peut-être que dañ dem ba benn moment boo xamante nit nit ñi daf mel ni boo melee noonu daf leen da leen di déranger quoi mais façon nit boobu kenn mënu ko dund ci àdduna mooy que nii mu ngi ci joxe ay lekk mu ngi ci joxe ay naan mu ngi ciy dimbali ay doomu aadama man ñi nga xamante ni euh, jege nañ ko am naa ñu ma ci xam ñoo xam damay wax ak ñoom mais à chaque fois boo waxee la même chose lañ lay wax nit ku baax nit ku tabe ku yiw nit ku jàpp ñàmburam mais c'est quoi le problème te nit la jigéen la boo bu jàmbaare boo xamante ni dafa def ay preuve am fii ci Sénégal di jàppale ay nit di leen dimbali man nag <laughs> mooy li ma lay wax nii li may def man ragaluma ci euh, dara xooluma ci ma euh, xooluma ci paate euh, xooluma ci demb man maa am envie way ko nit financé wu ma ne ma way ko nit new ma lii tàggu ko ne ko maa ngi lay way gis naa ñàmbaarteem mu neex ma mënu ko defal dara mënuma ko may xaalis mënuma ko may kër mënuma ko may oto man nag maa moom sama bopp yor sama baat ma sentir ne que nii war naa ko way woy naa ko après jeex na. delloo ko njukkal quoi nga def. delloo ko njukkal ci li ma la wax ci ci baax bi mu baax euh, soxna Aida dafa nekk nit ku baax te naa la man bu ma gisee nit boo xamante ni déjà doo tontu doo wax lu bon doo wax lu ñaaw ci doo dugg ci ñàkk fayda te nit du la gis ci lu ñàkk fayda xam nga ni Sénégal bii <laughs> dëkkum kaala lu ñu xam ci nit ci lu bon dañ koy wax te aussi ma am sama xarit bii di gala lu ma def damay ne ko carrément def naa lii ba ma defee loolu li ma la wax nii yàgg na ba ma ko defee bu ma ko tegoonoon lii ne ko carrément lii loo ci xalaat mu ne ma carrément lii euh, euh, neexul wala wala bu ci dugg naa ko laaj aussi le pourquoi parce que ñi ñi ba ma moment bi ma defee loolu yaa yaa yaa yaa beaucoup de y avait beaucoup de gens euh, qui me disaient que ni lu tax nga am kii bi ne da nga koy woy man na la neex ma est-ce que sa xaalis laa ko woyee est-ce que yow sa inspiration laa ko woyee daf ma neex ma woy ko te li ma la wax nii jàmbaaram moo tax te nit bu mel noonu yow dëkk bi metti na metti boo xam ne yow nit ñi xiif nañu yow nit ñi mar nañ nit ñi bu ñu amee nit bu leen dajale sax di leen dundal tey soxna Aida ñooñu muy dundal di leen jox ñuy lekk ñuy naan mais ñooñu ku leen ne am nañ ko seen biir kër mais loolu bu ko yàlla fayee rek <laughs> mun na dugg àjjana nañu waxante dëgg koo xam ne mu ngi dajale ay nit di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan mais kooku waruñu ko te waruñu ko nañ ko bàyyi mu def li muy def c'est ça quoi. Euh, euh, Birahim mu mel ni nag damay dugg ci leneen loo xam ne euh, parfois réseau yi da ngay yow da ngay moom réseau yi de temps en temps lu ne lañ lay waxal quoi parfois nga jékki-jékki rek yow def benn affaire ci réseau yi Amérique nekk Sénégalais yi parfois lu ne lañ lay wax de Birahim man lu ne laay dégg ci réseau yi quoi. mais comme lan ngay dégg. <laughs> que nan ngay en nan ngay accueillir coow yooyu di agsi wala rumeur yooyu nga xam ne parfois nga xëy jékki-jékki def benn look boo xam ne dañ naan waa Birahim fan yii passé dama dégg ñu ne waa Birahim dafa commencé dugg ci ay lobby franc-maçonnique genre. nee na waaye nga ne ma wax loolu yàlla xam nga dafa ma sàkk may doomu aadama mu sàkk keneen muy doomu adama kenn du ci malaaka te kenn du ci yàlla barke alxuraanu karim doomu aadama doomu aadama rek lu ma a doon man ragalu ma nit yàlla dafa ne falaa taxaafoohum waxaafoo nii bu leen leen ragal ragal leen ma man in kuntum iyaaya taabuduni bu fekkee man rek ngeen di jaamu man ragalu ma nit te ragalu ma waxu nit comprendre nga bu ma amee envie def benn affaire wala ma sentir loolu dama koy def après nag lu ñu ci wax rek ça va du ma du ma du ma du ma désinstaller ay désinstaller ay ay ay ay ay ay commentaire ay affaire yooyu commentaire lu la neex commentaire bind la rek <laughs> te amaana ki la koy commentaire bu la téemoon na jégal la du la du la du la du la tudd du la taas ko léegi commentaire tool toogal sa ginnaaw clavier nga nga nga parce que mooy li ma la wax Sénégal bañ dañu du ñëpp nag mais plupart des gens dañu bañ dañu bañ dëgg ñi bëgguñu ku ku ku direct parce que ay naafeq genn wàllu personne ñëpp ay naafeq lañ dund dund naafeq la ñuy dund àndandoo euh, jayante tàqalikoo jëwante man loolu laa dul loolu def yàlla yàlla daf ma tànnal sax samay xarit man ku du sama xarit sax da ngay dem danga may pouse te doo xam lu la ma lay pouse loo. moo seeg sa xarit la ba tey wala. déggoo ma la wax keroog rek mu may envoyé message mais bu ma ko lay wax dëgg dama ko wax dëgg <laughs> li ma lay wax nii amu awma kenn koo xamante ni fees nga sama bët ba mu la waree wax dëgg du ma la ko wax munul munul nekk dama ne la damay ànd ak yàlla ma boole ay xarit yoo xamante ni ay xarit yoo xamante ni ku ngeen gis ni Pape Birahim mi nga ànd ak moom rek exemple la duñu jëw duñu nettali du duñu yàq der man xeetu xarit yooyu laa bëgg boo xamee lu ñaaw sax téye ko te man Médina muy Gueule Tapée muy Fass yi ñi ma xamal ñoom xam nañ ko ñooñu ma la wax nii du ñu jëw du ñu yàq der dañuy xam dara lu ñu ma war a wax sax mais duñu ma ko wax commençant ci kii taxaw nii galaa mu tiim la nii amul ku ko yàpp Médina Fass Gueule Tapée ndax dafa bari histoire mais bari histoire bi yëpp la la ay principe mënoon naa ànd ak moom tey muy dégg affaire di ma ko nettali mais du ko def la koy téye. alors euh, Pape Birahim Prince Art la nekkoon euh, tey vraiment mu ngi ci label international donc euh, li ngay toog Sénégal sax bareetul yaa ngi diggante Sénégal Amérique euh, Prince Art ak ci fi nga nekk léegi nga xam ne vraiment mën naa ne Birahim international la fan nga ci gën a gis sa bopp. non man fu ma nekk rek fu ma nekk rek baax na man fu ma nekk rek lu ma fa am rek yàllaa ma yàllaa ma jagleel loolu garaawul man ay gis bopp ak ñàkk gis sa bopp yëpp intéressé wu ma. yaa ngi dégg. mais gars yi nee nañ Birahim macha allah léegi la gën a am xaalis. te la alhamdulilah lépp yàlla def rek loolu la. Prince Art dama leen di wax ne a chaque fois ma ne leen a frère lañ samay sœur lañ ñooñu samay xarit lañ daju paa bi kenn jiituwu leen fi comprendre nga voilà te toog leen ngeen xaar rek nañ toog xaar rek lu ne mun na xewee fu ne. delluwaat Prince Art que am nañ fa album boo xamante ni mën nañu xëy génne ko am nañ fa double album dafa am ñu may liggéeyal actuellement mooy waa Tëgg Jaay ñu ngi Amérique. ñuy préparé suñu album international xam nga déjà pare nañ quoi mais Prince ay relation yu baax la ñu am <laughs> peut-être que euh, xam nga presque des fois moom dëmm yi mën nañ la sax wala jinne yi mën nañ leen sax jaxase ku nekk dem sa yoon xam Sénégal fii dafa am ay nit yoo xamante ni moom c'est des gens yoo xam ne ay des gens mauvais. biir Prince Art. non waxuma la ay biir Prince Art biti Prince Art ñooñu ñu ngi fépp mën nañ nekk nañ nekk biir Prince Art mën nañ nekk bañ nekk biir Prince Art léegi naa foofu dafa garaaw de. non ma la mais loolu man non yooyu man sama yoon nekku ci ne ma la wax rek da nga xam da nga la nit <clears throat> bëgguñu ay nit yu ci ci jàmm ndax maak ñoom ni ñu mel nee na Prince man maa fay Prince Art man maa fa nekkoon artiste buy dogal lu ma neex moo fay am est dégg lu ma neex moom lu ma neex la ñuy def parce que samay frère lañ maak ñoom dafa am lu lu lu lu garaaw lu ñu liyee nekk ma fa woon nii nii nii nii comme ça nii quoi. ay ngóor ni Ibou ay nit yu baax lañ. non sama yow lan mee loolu mooy lan samay frère lañ ay nit ñu baax lañ loolu xaarim loolu du laaj mais Sénégal dama lay wax ni que ni Sénégal ñenn nit yi ñooy ay nit yu bon dañ la nga nekk ak say nit ñu fexel la ñu fexel leen mais garaawul yàlla moom lu mu lu mu war a def jaam mënu ci dara barke alxuraan. Euh, Pape xam naa fi may jeexale nag vraiment euh, dina euh, xaw a kii mooy. récemment euh, on a appris quand même euh, décès wu sa papa sa waajur depuis boobu wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne marqué na la yow euh, parce que kenn la woon ah, ci yow vraiment koo xamante ne bi mën naa ne valeur yu bëri yoo xam ne am nga ko tey moo ko def ci yow pap boo ko xamee nit ku fonk jaamu yàlla la ku fonk julli ku jàng alxuraan donc absence am tey lan la la def. ah loolu moom. c'est c'est normal am nañu kulifa yoo xamante ni mu jigee fu kër gu ñu jigee rek kër gi sax day day day am na ñoo xam day jóge ci kër kër gi gedd xam nga paa bi li mu def ci ñun li gën a garaaw sax mooy li lay wax ni comportement bi ñu am nii mooy comportement direct dëgg wax nit ki dëgg quoi li ñu xam moom lañ moom moom loolu lañ ko xamee damba moom <laughs> benn nit la woon boo xamante ni macha allah waaw amul caaxaan du caaxaan du ree sax ree bu ñàkk fayda waaw lu mu la wax dëgg la am papa dund na ba génn àdduna amelul sax nit un franc bu bu bu bu bu ndaw waaw di nga taxaw sax ñi si ndeysaan ñu julee ni ne la ku ko ameel après nit ñëw ne la ameel na ma lii kenn am amelul kenn dara comprendre nga daf ñu yar ci diine l'islam ci ngor xam suñu ba pare doylu xam nga doomu aadama gis nga li gën a ëpp am li li ëpp importance ci doomu aadama mooy doylu doylu boo ko defee rek yow santal yàlla te c'est pas donné à tout le monde xam nga ñun ay milliardaires lañu billaahi wallaahi watallaahi ay milliard multi milliardaire lañu parce que dañu jël doylu moom ko nit am na àdduna ak lu ci biir te bu tëddee du nelaw nit am na àdduna lu ci biir jékki-jékki rek ñu ne la malaise na dee na boo ñaan doo ñaan <laughs> gudd fan ak wér ak jàmm nga nga nekk nga nekk nit am jàmm lool la ñu ñaan yàlla ci loolu lañu la ñu gisee suñu parents yi te du moom kese ay frère am dañu doylu boo leen gisaan ñoom bi ñu daan nekk ñoom ñëpp ñoom kese ñoom ñoom kese ñu daan toog julli woor toog seen biir di waxtaan di reetaan ñoom la xamoon loolu la ñu jël nag ci ñoom waaw duñ dañ nekk famille famille boo xam ne booy ñàkk boo ñàkkee fayda sax ba mutu da ngay gaaw a moo tax paa bi mu demee ñëpp la marqué ñun paa bi yow ñun paa bi bi mit ñun bi bi mu màggee de sax lañ commencé am jàmm ñun si ñun mbedd mi bu deux heures jot jotaan deux heures pare nañ ci mbedd mi bu ñu jàngee ba wàcc cinq heures mooy jot ñu mën a génn balaa timis dugg nañ ci kër gi bu ñu génnaatee lan lan lan lan demee la man la yàlla defoon ma nekk benn waga benn waga rek ma xam fu nekk day am benn sarax maa fi nekkoon nekk nit bu të man samay famille ñëpp dañ daan voyage ñu ne man du dem waaw man moom yàlla li ñaan naan fois yàlla moom lay neex mu dimbali la mu gindi la man yàllaa ma dimbali rek ma gindee ko du doomu aadama yàlla la yàlla ak Seydina Limaam bi ma booleel moom ma viré. <laughs> man sama famille xam nañ bu baax waaw moo tax dara in safuma dara intéressé wu ma voilà yàlla rek ma saf. macha allah loolu am na solo euh, euh, Pape yan kàddu ngay tàggatoo vraiment tey ci bésu it bi gis naa ni donc euh, <laughs> émission bi à la fin donc mu ngi bëri émotion wax dëgg yàlla ku ci ne yaa ngi ci gis sa bopp ci. Euh, xaw na triste sax ci euh, lenn li mais c'est normal parce que fi ñu dugg la la mais bon lan ngay tàggatoo ak euh, sa fans yi nekk un peu ci àdduna bi ci bésu it bi. waaw di leen ñaanal yàlla rek di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér xam nga dafa am nit yoo xamante ne yàlla dafa lay ak ñoom ñu nekk say nit yu yàgg xam nga di la yàgg xeexal tey ki nga gis ni maam Diarra mi nga gis ni mu toog nii macha allah dafa nekkoon ci Birahim famille xam nga moom ak rakam bu jigéen ba yàlla may ko jëkkër waaw vraiment mu voyagé après ñëw. xam nga ñeneen ak ñeneen ñu ci nekkoon ay nit yu yu yu yu ay nit yu am personnalité ay nit yu dëggu quoi xam nga li ñuy ñaan nag ci yàlla mooy que ni euh, li nga xamante ni moom la ñuy yaakaar rek ah ci dëkk bi ñun ñëpp rek Bamba yàlla bu yaakaar tas rek yàlla na Sénégal mel ni dëkk yi nga xamante ni kenn dootul sax bëggati bëggati tukki billaahi te mun na nekk bu ngeen bu ñu àndee rek ci benn ci bu ñu àndee ci dëggu ak liggéey Bamba Sénégal dina dàq sax Amérique. Sonko <laughs> loolu laa bëgg ñu acapella ko laay sama régisseur <laughs> loolu lay laaj sax déjà acapella bi ci Sonko ak Jomaay naka nga xamay il faut ñu am acapella <laughs> Macky dem na Amadou jooy na Bassirou Jomaay toog na Macky dem na Amadou na Bassirou Jomaay toog crazy aji daw <laughs> dëgg gi feeñ ma ni waykat yi nañ gàcce gi rëy na lii de ñaaw na ama ki dem na gi daldi di neex waaye bu ñu waxtaanee jiboo réew mi day gën a neex billaay bu ñu waxtaanee te teg ko ci yoonoo jaara yaayam xam la la bëgg Basiru Sonko Basiru Fay mooy Sonko doomu ndoyum Babacar Basiru Sonko Basiru Fay mooy Sonko doomu ndoyum Faala yee Sonko yàlla na Sénégal gi jëm kanam tey ba su korité la <laughs> sanche yi day génnaa ah, te moom moo njëkk a way sañse ci réew mi moo valoriser sañse way ko <laughs> Pape Pape loo ci wayoon cas du la daab danga koy judduwaale bamba tey xam lila la jàpp foo génn fa laale dem ne jàkk ñuy bégee ba te mer maîtrisé kontaan ni dooley jënd ni waaye xelay solu ak ma romb ñuy xolu def say couleur ku mën day osé waaw kooku de kooku de mën naa ne ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ibbi buntu boobu mën na ko ñoo ibbi buntu boobu ba vraiment euh, mën na ko ñoo ibbi buntu boobu ba ñëpp vraiment daal après commencé way way way sañ si tàkkar naa se waaw mais nag sant yàlla waaw boo nee ba mu ba way benn affaire boo xamante ni inspiré na ñëpp xam nga ba léegi ñëppay bëgg a woy sañse moom sant yàlla la quoi. ay <laughs> jëf mi ngi noonu jërëjëfati laay kontaan naa euh, amoon mbégte dalal ki nga xamante ne bii mooy Pape Birahim donc on se donne rendez-vous ci beneen jataay Pape ñu ngi la fekk nag ci kër famille bi wax dëgg yàlla hmm, yàlla nañu yàlla may ñu fekke ko ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri ah ñaanal famille bi yëpp vraiment euh, kàddu gi yow laa koy bàyyi nga tàggatoo. waaw di ñaan gudd fan ak wér rek di ko ñaan yàlla di ko ñaanal sama xarit yëpp waaye di yàlla na yàlla may fekkee. tal ak fekkee ndax àdduna moom dara jarul yàkkamti waaw ku xool diggante Diomaye ak sonk moom euh, vraiment daal nga xam ni yàlla rek mën parce alxuraanu karim keroog mooy seetaan image bi gis euh, euh, bi ko kii lu mu ti jàkkaarloo bi bi ko birima di naan ko ay xale ngeen da ngeen war a régler place su xale patati patata ndeysaan ma xam ne yàlla yàlla xamul xale xamul paa xamul xamul xamul xamul xamul jànk li mu war a joxe donc te fi mu naan fi ñu naan fii fii mënatul nekk xanaa xam man sama genre man dama bëgg ay genre défi yooyu quoi mooy que ne lii mënatul nekk après yàlla nekkal loolu mu nekk quoi xam nga nga gis ne lii nii yàlla rek vraiment loolu moom euh, di ñaan yàlla daal bamba li ma la wax yàlla bu yaakaar tas ñii képp ku leen di xaar yàlla na nga xaddi képp ku leen yéene lu bon rek képp ku yéene gouvernement Jomaay euh, euh, Fay bi ak sonk bi ñu ñu ñu ñu lajj yàlla na la yàlla yàlla na la yàlla waay jërëjëfati Birahim ñu ngi lay gërëm bu baax a baax alors laay la PDG moo nekkoon ci cadrage bi. Feeling Dakar, notre plateforme d'information.